asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna mbégte kontante bu nganda lan àndal ñëwaat tey fii ci Géejawaay si seen émission bi nga xam ne dañuy wër di dalal ñi nga xam ne ñooy borom nomba da daara ñi nga xam yàlla suñu borom moo leen baaxal tey nag Géejawaay info ñëw dalal ki nga xam ne moo di ministre Bamba Kane nekk fii ci Géejawaay li ñuy def mooy daal koy bàyyi mu nuyoog yéen ñu saafonte balaa ñuy dugg ci waxtaan bi asalaamaaleykum. Euh, salaamaaleykum euh, waa Géejawaay info euh, maa ngi leen di nuyu di leen gërëm ci invitation bi ngeen ma invité. di nuyu tamit euh, internet yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi may déglu di ma xool di ma seetaan euh, man le professeur Bambakan, Kane euh, nekk ministre conseiller nekk responsable politique fini nii ci Euh, jërëjëf euh, waaw man euh, Bamba Kane nekk na koo xamante ne nii mu ngi juddoo fii ci Géejawaay maa ngi juddoo ci quartier bu ñuy wax Cité Junqop sama cursus nag maa ngi ko tàmbalee ci sama jàng jàng naa alxuraan jàngee ci daara ju ñuy wax daara Youssoufa Sakh imaam Youssoufa Sakh dugg école jàngee école 20 damay faral di wax ne man et je suis un pur produit de l'école publique école 20 bu cité Jonkop fila Je Je suis ma fi jógee ma jaar collège Pikine Est euh, jóge euh, dem euh, lycée Seydina Limamou à amee fa baccalauréat Je suis fa jógee ma faculté de médecine et pharmacie de l'Université charles Diop de Dakar Je suis fa à ak doctorat ma université Louis Pasteur de Strasbourg euh, de l'Université euh, Université de Dakar di fa Je suis euh, ancien interne des hôpitaux parce que bi may étudiant à concours bi wax concours internat un assistant ci faculté de médecine et pharmacie ci laboratoire de physiologie Je fa un maître assistant depuis 2012 je suis professeur agrégé de physiologie euh, depuis 2016 ma donne professeur titulaire des universités euh, depuis Nak euh, euh le président nommé depuis 2017 si le président de la République son excellence Macky Sall nommé comme ministre conseiller dans son cabinet voilà en gros c'est mon cursus non là, comme on a résumé. voilà le ministre. waaw effectivement euh, man nag euh, bi ñu ma nooyee Miss Conseil aussi euh, may bokk ci ñi nga xam ne dinaay xelal son excellence ci lépp loo xamante ne jëm na ci wàllu wér yaram muy santé ak wàllu enseignement supérieur muy njàng mu kawe mi loolu ci laa koy jox suma xalaat mais aussi dama jàpp ne poste ministre conseiller nekkul benn liggéey boo xam ne dalay occuper tous les jours tous les jours tous les jours ba nga xam ne loolu moo euh, ma defoon choix def choix conserver euh, un pied à l'université madame. Euh, Activité, yi ma don à l'université maa fay am ba ni ma don yi may ko activités yi ma hospital universitaire suis hôpital ak université di def di encadrer ba ay bokk naa tey ci euh, professeur d'université yi nga xam ne ñoo ëpp étudiants yi ñuy encadré ci université Cheikh Anta Diop ba mu daj waxuma la ci faculté de médecine mais université Cheikh Anta Diop ba mu daj man bokk naa ci euh, ñi nga xam ne ñoo ëpp lu ñuy encadré ay étudiants te loolu bi ñu ma nooyee ministre itam euh, taxul loolu dañ ndax encore une fois dama jàpp ne loolu choix bu ma def xëy na nag yàlla mën na def Euh, ndombal tànk yi peut-être dina toll foo xamante ne benn instant peut-être di nga di nga jël disponibilité par rapport à l'université foofu rek ma fay euh, euh, leeral tuuti ci ñenn ñi nga xam ne xamuñu ko que ni man bi ma président nommé aussi mu doon honneur ci man doon honneur ci waa Géejawaay yépp dama def benn choix mooy que tey des fois ma faral di ko wax man am na ñu bëree bëri sax ñu yaakaar ne que soo nekkee ministre. da ngay am ay avantages yu baree baree baree bari man nag avantage yooyu noonu peut-être sax du loolu moo dugal ci gouvernement te man gisuma avantage yooyu parce que man sama awma salaire u ministre dama koy wax àdduna yëpp di ko dégg dama def choix wu euh, conserver sama salaire u professeur d'université di percevoir que samay indemnité de ministre loolu nag euh, xëy na am na sax ay coono yu may xaw a indil ndax ni ñu baree baree bari dañ la euh, dénk ay soxla

Euh, man euh, may ki njëkk a juddoo géejawaay ñu nommé ko ministre ki njëkk a juddoo géejawaay nekk ministre dans un gouvernement du Sénégal man la yàlla def ma doon ko loolu nag honneur bu rëy rëy la boo xamante ne euh, xëy na président dafa maanaam saafara foofu benn injustice boo xam ne dafa yàgg ndax j'ai l'habitude de dire que géejawaay ay intellectuels yu mag a mag ñoo fi dëkk ndax meilleur lycée du Sénégal Guédiawaye la nek muy lycée Seydina Limamou Laye su ma ko waxee def na kenn du ko weddi donc bu fekkente ne meilleur lycée du Sénégal dafa nek Guédiawaye ça veut dire que les de grands intellectuels dëkk nañ Guédiawaye te Guédiawaye musul am ministre donc lolu président euh, xëy na corrigé na fofu nonu ben anomalie ñuy ñaan mu mu mu mu mu mu mu mu dolli ko li ma apporté nag euh, mooy permettre na ma tay may joxe suma xalaat ci Sénégal naka lay doxé waaw waouh lool rek amul fay mais encore une fois euh, amna ay indemnités yo xamante ne koy percevoir ah bon loolu luma ma apporter la mais du loolu mo gëna am solo ndax euh, je pense que financièrement limay apporter limay may moko moo ko ëpp téeméeri parce qu'encore une fois euh, biñ ma nommé ministre dafa yok suma daraja tax yaakar bu baré, baré, baré. baree bare wékku ci sama ay mbag te yaakaar yooyu musuma ko tas ba nga xam ne lim ma apporté tam li may li may li ma ko li may génne aussi euh, bari na mais loolu sant yàlla la ko sant yàlla la parce que bu ñu nekkee euh, ay millions et des millions de sénégalais yàlla bokk ñi nga xamante nii yàlla def na président de la république xelam nekk ci yow ba mu nommé le ministre loolu kese dafa doon cër boo xamee ne cër bu cër bu am solo daal. waaw euh, wax nga ko euh, journée de consultation boobu noonu mooy dixième édition bu ñuy def euh, loolu nag dafa am lenn rek lu muy màndargaal ndax man bima commencé def politique ak léegi ci 4 ans ci la tollu. Manam ci 4 ans et demi ci la toll donc bu fekkee ne dañu ne dixième édition cela veut dire que bagn ko commencé tambali diko def ak léegi bobu dugaguñ sax ci politique bobu xalaatuñu woon ne nañ def politique loolu nak bo gisee makoy def moy que man ci santé ci lay yëngatu ma euh, dëkk euh, ci quartier ak localité bo xamanteni nii yàlla dafa def ñi fi ëpp seen doole dafa néew amuñu doole souvent dem hôpital euh, fay consultation jënd ay garab faju ba nga xamné ñu ci bare bare dañuy soxale ay fièvre yu bare bare motax depuis presque dix ans ma décider chaque année ma and ak su may xaritu médecin xaritu pharmacien xaritu dentiste ay infirmier ndax man may président d'honneur ben benn euh, association buñ tuddé tuddee et priorité santé chaque année me and ak lu mat 70 à 80 médecins ak pharmaciens dentistes yo xam dañuy ñew gratuitement pendant une journée entière pendant 24 heures xol nit ñi fajj leen ñi nga xam ne dañoo yelloo ñu jox leen ay garab ñu may leen ay garab loolu nag man pour man wane euh, la rek bu may rendre par rapport ak fi nga xamné fi la bok ndax man fi la juddo fi la yaro fi la màggee awma possibilité kër gu nek ma dugg fa jox len xaliss wala ma jox len alal aw ko mais ci li ma am xam-xam wala ci sama ay relation su fekkente ne benn yoon ci at bi dina am possibilité wu soulager population yi ci seen i jafe-jafe yu santé euh, loolu kese mooy mooy objectif bi nekkul nag objectif boo xam ne objectif bu politique la non loolu ma yàgg a def la encore une fois wax nga ko c'est la dixième édition euh, donc lu jiitu la ñu ñu ñuy dugg ci politique. waaw dëgg la lu jiitu la ñuy dugg ci politique. Mhm. mais date bi day coïncider ak date boo xam ne dañu nekk ci biir campagne électorale parce que le ñu demee le dix euh, campagne bi ñu ngi ubbi le dit le deux mhm. février. Mhm. ñu dem ci le dix. coïncidence bi coïncidence la wala c'est c'est c'est c'est une préméditation. Euh, coïncidence là parce que li indi mu ñu dem ba 10 février mooy euh, journée bi jàppoon naa ko depuis euh, pratiquement mois de décembre mais reculer naa ko deux wala trois wala quatre fois parce que à chaque fois moyen moi, me donne manqué pour mu jàppandi à chaque fois donne un jàpp date bi bu ñu demee ba nga xam date bi jege na ñu am ay problème mu moyen tax ñu ñu ñu reculer waat ko loolu rek moo ko ci ci ci ci campagne bi te dafa journée boo xamante ne nii euh, journée bu nekul journée bu ndaw man dama kay wax te du chauvinisme wala faral wala len jàpp naa ni mooy journée de consultation gratuite bi gën a ci way ndax at bu jot lu mu new new new dinañ consulter entre 2000 et 3000 personnes hein nee la lu mat 80 médecins dañuy ñëw ñoo ñëpp sen ndékki sen añ sen transport dafa laaj manam ay moyens yo xam ne léegi daf ñu commencé dépassé donc loolu moo waral ñu jàppoon ko ci décembre bi antuwul ñu jàpp ko ci mois de janvier bi antuwul ñu jàpp ko ci mois de février bi te bi yoon moom incha allah fas ñu ko yéenee euh, fas ñu ko yéenee reculer te am nañ yaakaar ne dinañ ñu ci jàppale bu baax baax incha allah conseil dañuy jàpp ne ministre conseil pour Guédiawaye mhm. gox yi cee gis seen bopp xam ne kat ah seen à fait loolu dëgg la euh, loolu moom suñu yéenee la man tey sama yéene moo doon ma dajal Guédiawaye yëpp mais euh, olof yi dañuy faral di wax ne euh, bay si sa ci sa ci sa si sa wewu tànk mais daaw jéeg rek bima koy def euh, defeewuma ko rek école 20 bima dekk dëkk dem naa def naa ko école 20 defe def ko école 15 ci benn journée ñu décentraliser ko nga xam ne def nañ ko ci ñaari site yoo xam ne ñaari sites yu xaw a sonante la mais aussi biñ ci jógee metti woon na trop ndax encore une fois <laughs> bon ñun euh, amaguñu peut-être euh, li ñu bëgg dëgg-dëgg buñ ko amee day doon loo xamante ni day nekk ci calendrier wu géejawaay entière wala ñu toog 15 jours yoo xamante ni ci chaque commune dinañ fa dem def fa ay journée de consultation gratuite mais loolu aussi ñu ngi koy def ndax maa ngi fàttali ne man maay euh, président d'honneur guédia Guédiawaye priorité santé muy association boo xam ne dafa regroupé ay médecins pharmaciens dentistes infirmiers ak ay étudiants yi nga xamante ne dañ nekk médecine nekk pharmacie nekk chirurgie dentaire euh, ñu nekk di yëngu ci ci association boobu noonu te ñoom tey jii nii géejawaay amul benn gox boo xam ne amul benn commune boo xam ne mosuñu faa dem organiser sa journée de consultation gratuite xëy na nag niñ ko bëggee ak dimension bi nga xamante ne ni moom la bu école 20 di am yeneen commune yi du ko am ndax effectivement dafa laaj ay moyens yoo xamante ni malheureusement moyens yooyu ça fait défaut sorti façon sorti bu nekk am na gis nañ ci camp bi am na gis nañ ci beneen côté bi am na tey yow doomu Géejawaay da nga koy ñaawlu voilà waaw xam nga journée de euh, journée d'inauguration boobu noonu amoon euh, ñu doon inauguré euh, juma Souleymane Baal bu Géejawaay man maa ngi fa woon bokk naa ci ñi nga xam ne ñoo accueillir même le président waaw loolu kenn mënu ko rafetlu kenn mënu ko rafetlu ndaxte ku ne xam na ni juma ak ay sabar àndul

que ne bu fa kenn indi sabar bu fa kenn tëgg ndax inauguration jumaa la ñu wax dañuy julli juma waaw léegi nag xëy na du ñàkk de temps en temps moom ay éléments incontrôlés yoo xamante ne ni xëy na ñoom du ñu gisee noonu wala seen matadi tax ñu defee noonu mais lu ci. sabotage ñàkk waaw man xam nga nag euh, man mom yàlla dafa def man du ma wax lu ma wóorul du ne dafa am sabotage wala dafa am ñoo xam dañ ñoon pour saboter mais li am ba am daal mooy que ni géejawaay am nañu mbégte lool ci jumaa ji nga xamante ni nii man presque dama xàmmee dama xàmmee gis jumaa ji ñu koy defar te pratiquement plus de 40 ans euh, jumaa ji ñu ngi koy defar jumaa ji àggul euh, président de la république ñëw àggale ko ci diir bu gàtt mu doon un joyau boo fi jaaree guddi juma bi dafa bok sax ci décor esthétique gu mu doon lo xamanteni ni dañ ci sante bu baax a baax son excellence def na ni lolu lu am solo la euh, xeyna nak amna am na ay euh, euh, phénomène yu fa am yu melni ni ki sabar yoy nga xam lu meuna a la encore une fois man rafetlu ma ko te kenn mënul tax ma rafetlu ko parce que tam man tam je ne fais pas dans la langue de bois doonu moko koo damay wax luma ma gëmul sabar yi amul kenn ko xamanteni ni neex na la muy ñi bok ci mouvement présidentiel bi ak ñi bokk feneen may wax nag ni euh, encore une fois euh, loolu li muy gàkkal-gàkkal yëpp li ko gën a am solo mooy jumaa ji nga xamante ni tey géejawaay soxla woon na ko lool te président yu baree baree baree baree bari jaar fi jumaa ji sengoor sax fekk na ko fi président yu baree baree bari jaar fi mosuñu ko mën a àggale tey ñu àggale ko loolu defe naa ni mooy li nga xam ne mooy li gën a am solo euh, li fa xew nag xumb-xumb yi fa xew Euh, vraiment ñu ngi koy ñaawlu di ci jégalu bu baax a baax man ma ci jégalu ñi nga xamante ne nii metti na leen di leen xamal ne man Bamba wax dëgg yàlla man indiwu ma fa sabar man bi ma ñëwee accueillir naa président ànd ak sama ay nit ñu accueillir ko bi ñu paree ñu dugg ci jumaa ji julli ñaan man loolu laa ci loolu laa ci amoon loolu moo doon samay activité doonoon sama objectif lool laa fa def. recruté na ay gros bras. ñu daal di toog juste ca après ca même soirée boobu noonu on a vu une vidéo euh, au niveau des sites internet le président essaie de défendre loolu wax li nga xam ñom ñoom lañ tuddee les marrons du feu. Mhm. mu joxe les expressions les marrons du feu tués par la par par des chats. Mhm. mu nekk ay loo xam ne mën na jur tension. Mhm. day nekk résistance kuy wax résistance wax confrontation kuy wax confrontation wax ay nit yu war a jàkkaarloo est-ce que euh, expression boobu noonu mën ngeen am beneen bi wala boog ñooñu noonu te mën ngeen am ci yeneen bi yu leen tàggat mën na mën nañ cee jëmale. man euh, <clears throat> loolu li ma ci wax rek euh, lu lay doon man dama bok ci ñi nga xamante man confrontation d'idées lay prôné Manam euh, débat wu xel moom lay prôné violence moom ak fu mu mënti jóge rek man dama koy condamné te jàpp naa ni Sénégal euh, c'est un pays de droit ñu am ay forces de l'ordre yoo xamante ne nii tey kenn laam-laamewul seen caractère républicain kenn laam-laamewul seen xarañ defe naa ni euh, képp ku soxla kaaraange force de l'ordre yooyu mën nañu assurer kaaraange boobu noonu donc mënuma cautionner benn yoon ak fu mu mënti jóge rek euh, lépp loo xamante ne day doon loo xamante ne buñ ci xuusee ba ci biir mën na indi fitna mën na indi jéyee ci Sénégal ndax encore une fois le 24 février benn jour rek la avant le 24 février Sénégal dafa amoon après le 24 février Sénégal dafay am te jàmm ci la lépp xaj soo ko weddee nga dem ci dëkk yi nga xam ne am nañu alal ju dul jeex te amuñu jàmm wuñu alal jooju mënuñu ci dund mënuñu ci profiter donc ma ciy profito encore une fois de lancer un appel euh, à l'ensemble de la classe politique ñu delloo ci xel yi xam ne li ñu dëgmal benn étape la rek histoire du Sénégal ak évolution Sénégal euh, Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk euh, te jàpp amna lu bari lu fi feñ lo xamantene war nañu mëna am yaakar ci ëlëk yo xamantene ëlëk yu naataange lay doon ci Sénégal te loolu mënut a nekk ci lu ci lu dul donc ci jam ci lay woté ak kum mu mënti doon nga bok ci camp présidentiel bi ak nga bok ci opposition bi man loolu ci la loolu daal lay lay woté waaw euh, di leen gërëma ah, encore une fois euh, Guédiawaye info ma ngi leen di gërëm di leen féliciter parce que tamit euh, géejawaay dafa nekk localité boo xam ne dafa soxla communication ndax euh, géejawaay ñi ko xamul ñu bare bare bari boo waxee géejawaay dañuy gis leneen lu lu négatif rek la ñuy gis te encore une fois géejawaay doon na dëkk boo xam ne tey nii dëkk bu mag la c'est une très grande ville euh, ma leen di gërëm ci initiative bi ngeen am di ñaan ñi nga xamante ne ni mën nañ leen jàppale ñu jàppale leen en tout cas man taalal naa leen sama loxo euh, ni nga ko waxee nag la demee maa ngi oo ci suñu journée de consultation gratuite bobu noonu nga xamné le 10 février lañ koy organiser encore une fois à partir de 8h30 à l'école 20 de cité Diongkop à Guédiaway euh, képp ko xamante ni dëkk nga Guédiaway am tawat bo xamante sonal na la mën nga fa ñëw médecin yi xol la bu fekkente ne euh, mën nañ laa faj sur place dinañ la faj jox la ay garab bu fekkente ne tamit faj bi dafa laaj ñu référé la feneen ci yeneen structure yoo xam ne ñoo gën a xarañ bu boobaa tam ñu ñu ñu ñu référé la fa waaw di gërëm di di sant ñëpp di ñaan ñëpp ñi nga xam ne tamit ay bonne volonté lañ ñu mën ci jàpp ñu ñëw jàpp ci jàpp ci journée boobu noonu jërë ngeen jëf